ci yenn kaay yi. El Hadji Ousseynou Ndiaye ci yenn kaay yi. Elhadji Ousseynou leen jàmm ci xibaar yéeni bi di xamal ne jamono ji ba leer na balaa yàgg njiitu yi nga xam bi di xamal ne kay toll nañ ci fukk juróom yoo xam ne war nañoo ñëw foofee ca jëm ñaajo ngir fekk ji lépp loo xam ne jëm na ci prestation de serment boobu yi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall war na koo def la tribune yéenekaay du ñu xamal ne daal ak lu man di xew xam ne daal ñoo di amee bi du ñu xamal ne kay du ñëw yéenekaay bi di la Soleil du ko yónnee ñi daal di Macky ñi nga xam ne na nag ñoo a compétence waaw ñoo xam ne daal lii ñuy def mën nañu ko maanaam daal bu mënee tànn sax ay technocrate loolee baax na waaye itam ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique lu mën di xew daal nañu man léeg-léeg nga xam ne daal moom la def sa dex ñaan ma nekkee ca rado dafa mel ni itam kàddu yooyu sëriwu ko moom nag la muy sàkku ci njiitu réew mi bis bu bay tax sax wala gouvernement am lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu technocrate yi nañ leenu bàyyi xel gouvernement boobee nga xam ne daal moom la war a taxawal yéenekaay bi di ñu ne ak mooy premier ministre ko jiitewaat waaw ndax Macky Sall daal dina yeesalaat ko politique yi nga xam ne daal am na ko ci moom l'observateur di ñu xamal ne kay Sénégal jëmono ji daanaka ñàkkum ndox gu metti moo leen di waaj ciw bu mag ne ñu xamal dañu ko doon amal jëmono ji ñi nga xam ne ñee di waa SDE amul benn date bu leer boo xam ne daal joxe nañ ko ne balaa yàgg mbir yooyee dana leer waaye ak lu mën xew ñu xam la moo di ndox mi daal dina wàcc ba suufee waaye tamit dina bëri ay diggante yoo xam nga xam ne daal mooy restaurant yi gën a mag ñi nga xam ne ñoo nekkee fii war a sax yenn ci entreprise benn waay xam ne daal da doon client gu nu mel la doon amal waaw ndax bitéelu ndox mu neex wi moom la doon jël ko soldat koy ay restaurant yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci réew mi xamal ne moom moomee teg nañ ko loxo ba ay mbiram balaa yàgg dinañu ko leeral ñu daanee ko lépp loo xam ne nag jëm jëmale ci wàllu tàggat yaram yore ko yenn kaay di ñu xamal nag jamono ji réewum Sénégal war gannaaw jàkkaarloo gi nga xam ne amoon na ci diggante Sénégal ak Madagascar ñi ngi xaar na Sénégal ak Mali mu nekk match xaritoo boo xam ne ñi ngi ko war a amal ci Égypte